Ibrahima Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax euh, yaa jiite commission nationale euh, acteur yi yëngu ci wàllum société civile saytu euh, politique économique ak sociale ñu gën ko xam ci casque. wala mm-hmm. situation bi nga xam ne moom la Sénégal di jànkonteel ci langum politique interpellé na àdduna si yëpp. Euh, situation bi nga xam ne nag moo tax euh, ñu reporter élection euh, présidentielle yi ngeen génne woon ab bataaxal ci wàllu wile est-ce que mën nga dellusiwaat ci boobule bataaxal. waa jërëjëf Sylvie maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu waa réew mi FM yëpp comme ni ko waxee jamono yu ñu nekk gis nañ Sénégal jafe-jafe yi muy dund yu jëm si wàllu politique te jafe-jafe yooyu Euh, li si ko gën indi bokk na si euh, tuuma bi ñu tuumaal conseil constitutionnel mu nekk lu doy loo xam ne lu graaw la ñu ñu teg ko instance bu day noonu ñu teg ko ko lu musul am si si mu nekk lu musul am si si histoire Sénégal ak euh, la loi sur le report des élections bi nga xam ne groupe parlementaire PDS dugal nañ ko assemblée nationale loolu nga xam ne moom la moo sabab li président wax si li mu wax moo sabab mu def report élection yi. Mm. donc loolu créé na benn situation boo xam ne euh, indi na ay jafe-jafe euh, si wàllu euh, société bi fii si Sénégal depuis bim ko waxee ba léegi ñu seetlu si ne dem nañ ba mu am si ay ay ay ay nit ñi di génn ba am ay xale yu si dee loolu mu nekk loo xam ne dañ koy méttitu lool ndax dañoo gis ne deux mille vingt et un ba léegi xale yi fi dee bëri na te li ko sabab lépp si wàllu politique la Euh, mu nekk loo xam ne tamit euh, ñu dañ koy ñaawlu euh, di si gën a ñaax tamit politiciens yi ñu gën a bàyyi xel si si wàllu woowu fexe ba nga xam ne revendication yi ñuy def tamit mu nekk ay revendication yoo xam ne nañ ko mun a def ba ñu mun a xale yi tamit di si bañ a dee mm-hmm. loolu dafa nekk loo xam ne dañ koy ñaawlu lool te léegi ñu gis mooy Sénégal depuis le soir Euh, euh, instabilité yi fi am yëpp muy ay jafe-jafe si wàllu politique wàllu sociale yëpp li koy indi politique kase lay nekk loog dafay mel ni euh, politiciens yi tamit loolu seen intérêt rek lañ si jiital hmm. ñoom loolu rek la xool hmm. alors que am na yeneen jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal ak sénégalais yi ñu ngi koy dund bés bu ne mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne yu ñu war a taxaw la tamit di ci wax di ci wax ngir mun si am ay solution mais bu dee tamit si wàllu euh, élection rek la ñuy wax ak nu ñuy def ko jot si nguur gi euh, ba loolu di sabab ay nit ñi si dee alors que xale yaa ngi fii di am ay jafe-jafe si wàllu xëy mu nekk lu métti ñu gis ba ba muy sabab xale yi dem si gaal yi di si dee mu nekk ay junni junni xale yu dee kenn xamul nu mu toll te loolu yëpp sabab bi mooy jafe-jafe yi ñu nekk fii si réew mi amuñ solution yoo xam ne mun nañ si mun nañ si wala liggéey yoo xam ne mun nañ si jàpp. ngir mën a faj seen soxla dimbale seen waajur donc loolu jafe-jafe la yi fi ndaj yoo xam ne dañ ci war di wax euh, population bi ñu nga am ay jafe-jafe ba léegi si wàllu santé si wàllu jàng ak ak ak yeneen ak yeneen tey ba si Dakar bi léeg-léeg nga gis nit ñi jafe-jafe yu ñu fiy dund euh, yor sa malade war wër hôpital yi duñ leen la amoo place ba mu dee sa loxo yi yooyu yëpp nit ñi ngi koy dund mu nekk ay mbir yoo xam ne euh, li wax ni ëpp sens ni ñu def ba jot si nguur gi rek loolu kase kase du du problème pour Sénégal mhm. problème yooyu tamit dañu war a teg si table bi mais li ñu gis mooy politique yi nu ñuy des jotee nguur gi loolu moo leen gën a yitteel te loolu jaral na leen lu nekk ba xale yi di si dee loolu tamit lu ñu déploré la te war nañ ci taxaw ñun ñëpp am si ay solution ba nga xam ne jafe-jafe askan bi dina nekk loo xam ne moom la ñuy gën a teg ci kanam pour que que wàllu politique yi Euh, lan nga jàpp ni moo war a mën a nekk euh, conséquences yi euh, ci wàllum koom pour Sénégal. waa xam nañ ne conséquences yi si koom bi dina métti dina dina métti ndax daanaka Sénégal mu ngi doon dund ay jafe-jafe économique depuis Covid 19 bi impact yi mu def amoon na ay jafe amoon na ay jeexital yu yu yu métti yu mu teg si économie sénégalaise ñu doon xeex pour génnaat si guerre Ukraine bi ñëw yokk si. yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne su tension tension politique bi da koy gën a yokk parce que fii ñu nekk nii euh, mun nañ jàpp ne képp kuy investisseur doo doo du nangu ñëw Sénégal di fi jël ay engagement tant que situation bi génnuñ si ba élection am ba gouvernement taxaw ba stabilité bi mun a am bu boobaa xam nañ ne économie bi dina dina taxaw bu baax a baax dina sooxe te des manifestation yu ñu def it day def ay impact si activité économique yi nit ñi di def parce que bu ñu fàtte ne ñun plus de quatre vingt dix pour cent suñu économie informelle la donc bés bu ñu xëyee euh, euh, ay yëngu-yëngu am si dëkk bi kenn xëyu am na ñoo xam ne du ñu am dépense seen activité du dox donc loolu yëpp ay njeexital la yi am si économie bi ba nga xam ne euh, war nañ ci gën a mën a bàyyi xel xam suñu bopp xam nu ñu taxawee aussi ngir li nga xam ne moom yoon boobu lañ nekkoon di xeex pour génn ci jafe-jafe yi ñu amoon ci économie bi ñu mun ko ñu mun ko eggali. d'accord euh, léeg-léeg euh, société civile bi wala aar suñu élection ak ñeneen sax ak euh, ku jéggi euh, bëgg amal ab euh, doxu ñaxtu euh, donte sax manifester wuñu mais dañ leen koy tere lu ciy sa xalaat. waaw loolu tamit dañ koy ñaawlu. parce que tamit euh, citoyen sénégalais yi dañoo am droit pour euh, exprimer seen seen opinion te loolu mun nañ ko def ci marche mun nañ bind wax ko mun nañ ko def ci yeneen anam mhm, l'essentiel mooy nañ mhm. tegu nañ ko nañ tegu ci yoon ni ko yoon tëralee mhm. buñ tegoo ci ni ko yoon tëralee euh, état bi dafa war a jël motuwaay yi ci war yépp pour citoyen yooyu yooyu tamit ñu mën a exprimer ñoom it li nga xam ne moom moom moo nekk ci seen euh, seen opinion ah, loolu tamit dañ koy ñaawlu trop di ci ñaax gouvernement bi ne euh, lu nga xam ne mooy euh, la liberté d'expression ah, ak le droit à la marche nga xam ne ci constitution sénégalaise la ne ñuy jël mesure yu ci war pour population yi citoyens yi di ko mën a exercer ni mu waree conformément à leur droit et la constitution sénégalaise loolu dañ ciy ñaax nguur gi bu baax a baax ñu jël matuwaay yëpp yu ci war ngir euh, ngir yooyu tamit mun a am. Mhm. Euh, yéen a ngi doon wax euh, pour génn ci li ñu nekk yéen a ngi doon wax ab solution juridique maanaam wàllum continuité alternance démocratique. waaw loolu lu tax ñu wax ko mooy dañoo gis ay sooxe ay sooxe yoo xam ne am na ci ci processus électoral bi am na ay sooxe ñu gis ne li ko sabab mooy Euh, xaj na ni conseil constitutionnel de doxalin bi ak Sénat nuñ ko nuñ ko nuñ ko taxawalee ak doxalin bi ak nu ñu tànnee membre yi lañ ñu gis ne loolu mooy sabab bi te ñu ne loolu kon war nañ def ay réformes yoo xam ne euh, si conseil constitutionnel ak Sénat ni ñuy tànnee membre yi ak ni muy doxee ñu xoolaat ko ba nga xam ne euh, rëq-rëq yi am dootul amati looloo tax ñu proposer loolu ba nga xam ne dina nekk loo xam ne continuité lay ne parce que bu ñu demee ba ay candidat yi nga xam ne am nañu ay double nationalité. di mhm. di jàll conseil constitutionnel échappé leen ba jàll. loolu c'est très dangereux c'est très dangereux parce que loolu day wane ne ëllëg kenn ku ne mun na ñëw infiltrer Sénégal nekk président de la République te ku war a nekk président yaakaar na conseil constitutionnel lañ jox prérogative boobu moo war a jël matuwaay yi war yëpp xool fiabilité nit kooku te loolu euh, bépp lu ci war ñoom am nañ ko pour mën a enquête candidat yi ba xam lan seen fiabilité lan la parce que nguur tamit duñ ko duñ ko réew duñ ko dénk ku nekk kuñ koy dënk dañ ko war a xool bu baax te loolu conseil constitutionnel lañ ko sas mhm. donc buñ demee nag ba ay candidat am ay nationalité ñëw échappé conseil constitutionnel ba jàll fa loolu ça pose problème et ça nu ñun daf ñu daf teg njàqare ci suñu réew mhm. ak suñu sécurité réew aussi mhm. donc si loolu lañ ne loolu war nañ si def ay réformes ay réformes yoo xam ne dina mën a garantir benn continuité démocratique ci Sénégal. Mm-hmm. Uh-huh. d'accord tey ñu ngi wax euh, waxum dialogue euh, waaye itam amnistie ndax CASC euh, tey pare na ngir wuyu ci boobule dialogue. waaw ñun CASC pare nañ pour pour pour lépp li nga xam ne dialogue la waxtaan boo nga xam ne dina dina nekk ci intérêt Sénégal parce que foofu it li ñuy oote mooy dialogue bi buñ koy def pour nekk dialogue pour ñu. pour ñu acté ay deal politique dana nekk dialogue bu sincère boo xam ne euh, intérêt Sénégal moo koy moo moo koy tax a jóg ñu jël si ay ay mesures ay solutions yoo xam ne ñëpp siy déggoo acteurs politiques yi gouvernement acteurs sociaux yi acteurs économiques yi ñu am ay solutions yoo xam ne dinañu mën a fexe ba ñu dem si ay élections lu gën a gaawee ay élections yu mucc ayib yu libre yu transparente inclusive mm-hmm. ba nga xam ne képp ku ci war a bokk ci yoon dinañ la di dinañ di nga ci mun a bokk ah, ndax euh, jàmm mën a amaat ci bi loolu ñun ñu ngi manifester aussi sur ouverture sur loolu mhm. ba nga xam ne dialogue boobu dina mën a am rapidement mu nekk euh, parce que munuñ ko munuñ ko ñàkk def fu mu nekk ni situation bi jaxasoo na ba nga xam ne foog ñu waxtaan mhm. foog waxtaan am mais ñu def ko si lu mu gën a gaawee te mu nekk dialogue bu sincère aussi mais pas mu nekk dialogue boo xam ne c'est pour acter des deals politiques d'accord euh, mhm. Mhm. Mhm. Euh, Ibrahima tey euh, ñëpp jug nañ taxaw lànk ne bëgguñu ñu dàq élection yi ba quinze décembre jàpp nañ ni dafa sori enseignants yi ñu ngi nekk ci grève Euh, politique yi euh, ñu ngi def marche opposition bi ku nekk yaa ngi def li nga mën communauté internationale bi euh, ñëpp a ngi ci wax ba suñuy ancien président yi sax ñoom àdduna nañ ko ci mel ni maître Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf wax nañ ci mbir mi yéen nekk su yéen yi nekk société civile bi tey à l'instant te lan ngeen jàpp ni moom lañ war a def ngir ñu génn ci crise bi waa tey tey euh, mooy li ma wax léegi niñ mën a def pour génn ci crise bi fu nekk nii euh, waxtaan mënuñ fi mënuñ ko def sans waxtaan foofu concertation am ñi nga xam ne mooy acteurs politiques yi ko seq ak acteurs sociaux yi muy société civile secteur privé ñëpp ak syndicats yi ñëpp dañoo war a toog def waxtaan bu ñu waxtaanee Euh, nu mu gën a gaawee ñu xool élection yi naka lañ ko mun a organiser ba nga xam ne mhm. nañ ko organiser te coow du am parce que loolu mooy défi bi fu nekk nii parce que bu ñu bu ñu bu ñu profitoo dem see élection yoo xam ne euh, le contentieux poste électorale du ñax foog mu am bu boobaa ay jafe-jafe lay indiwaat parce que contentieux poste électoral moo jaxase réew yu bëri si àdduna bi donc loolu en foog ñu waxtaan nu mu a gaawee ñu xool Mm-hmm. naka la ñuy organiser élection bi mm-hmm. si bu mu gën a gaawee ba nga xam ne yooyu yëpp nañ ko nañ ko nañ ko mun a moytu mm-hmm. sinon bu ñu gëmmee si contexte bi aussi euh, ak nu mu demee nii ne dañ si dem élection bu boobaa euh, xaj na euh, yeneen jafe-jafe mun na am si si réew bi te te bu boobaa du du nekk lu gën donc yaakaar naa ñun solution bi ñu proposé mooy lu gën mooy ñu def ay waxtaan si nu mu gën a gaawee organiser waat élection yi très rapidement aussi euh, mu nekk élection aussi yu jaar yoon ba nga xam ne nañ def tout pour moytu lu ñuy wax ay contentieux force électorale d'accord Euh, mais est-ce que boobu la dialogue mun nañ jàpp ni solution la ndax euh, bala euh, ñuy reporter élection yi dialogue amoon na fi mu mel ni dialogue boobu amul lenn li nga xam ne jur na ko lu dul xàjjale li nga xam ne moo di politique yi. waaw loolu loolu dëgg la parce que euh, mois de juin la déjà mhm. mois de juin def nañu ay dialogue dialogue boo xam ne euh, génnoon na ay résolution mais may li ñuy wax mooy euh, dialogue bi buñ koy def na nekk dialogue bu sincère mhm. waaw parce que c'est ça notre problème bu dee dialogue la boo xam ne c'est juste pour de deals politiques bu amul benn njëriñ mhm. buñ si génnee les même problème ñooy ñëwaat mais da dañ koy def dialogue boo xam ne dialogue bu lay ne boo xam ne intérêt Sénégal mooy jiital ñëpp ci jalog bi ñu trouver ay solution yoo xam ne c'est pour l'intérêt du Sénégal mais pas pour l'intérêt scripto personnel de chaque politicien mm-hmm. loolu bu ñu demee ba am auteur boobu moytu loolu toog ci dialogue nañu am solution yoo xam ne buñ ci paree benn jafe-jafe lu am te nañ am ordre élection yu jaar si am. Ibrahima ñu ngi lay sant di la gërëm. merci Sylvie maa ngi lay gërëm bu baax a baax. Eh, ci fàttali rek yaa jiite commission nationale acteurs société civile pour le suivi de la politique économique et sociale ñu gën ko xam ci casque. yàlla ñu gën ko xam ci casque.